maître Amadou Diallo maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay eh, nuyu madame. yow yaay eh, njiital Amnesty International section Sénégal président bi alors maître talaata bi eh, seen kuréel gi génne na rapport boo xam ni dafa ci ŋàññ tuuti nguuru Sénégal ci lu aju ci àq ak yelleefu doomu aadama ndax mun nga ñëwaat ak ñun ci rapport boobu. waaw rapport boobu mooy rapport bi nga xamante Amnesty International. Euh, au niveau mondial at bu nekk day day day génnee benn rapport pour euh, wane situation euh, droit de l'homme yi violation situation droit de l'homme yi si si àdduna bi yëpp àdduna bi yëpp tamit Sénégal ci la bokk Sénégal nag gis nañu quand même deux mille dix neuf relevé nañu concrété nañu violation yu bëree bëree bëri nga xamante ne day dal ak yelleef doomu aadama Euh, pour euh, euh, citer pour ne citer que quelques quelques-unes de ces violations là gis nañu par exemple violation de la liberté d'expression et de réunion amoon na fi bëri bëri bëri gis nañ tamit ay violation des droits des enfants amoon na fi lu bëri bëri bëri bëri gis nañ tamit ay ay violation n'est-ce pas des des des droits des citoyens dans le cadre de ces manifestations parce que gis nañu quand même takk der yi des fois suñuy def seen mission de maintien de l'ordre dañuy euh, utiliser ay euh, doole bu ñuy utiliser daal dafa dafa dafa dafa jéggi dayoo euh, gis nañ tamit ay prison yi mooy leen détention yi ay nit di fa dee et loolu kayam am na si yàgg na ko ngaañi ñaan état du Sénégal pour mu jéem améliorer condition de détention ñi nga xamante ne ñi nga xamante ne ñi caabi dafa leen féete ginnaaw mm. pour joxee misaal rek Sénégal trente-sept prison la am bi nga xamante ne contenance bi mooy quatre mille et quelques mais Sénégal tey soo xoolee y' a plus de onze mille euh, personnes yi nga xamante ne ñu ngi ci prison yi donc loolu mooy xat-xat yu nekk ci foofu et ñu jàpp ne tamit état du Sénégal war na pour pour améliorer améliorer améliorer yu mel noonu. Mhm. lu soxal euh, xale yi tamit euh, rapport bi ñëw na ci ak xëy na fitna gi ñu leen di teg ci yenn daara yi. waaw fitna gi leen di teg ci daara tamit le fait que ñu gis xale yi di dox ci mbedd bi amuñu ak ci mbedd bi ci sol ay yooyu yu salte di di di loolu yëpp am nañu yàgg na si yàgg na ko ngañ alors surtout que Sénégal xam na ni euh, euh, état du Sénégal mooy assemblée mooy mooy mooy état bi si boppam mooy gouvernement bi am na ay ay ay daan yu mu teg pour pour xeex yu mel noonu mais malheureusement euh, daan yooyu am na fi mais duñ ko appliqué jàpp na loolu quand même faiblesse la pour état du Sénégal par rapport à la respect nest pas des des de ces moo tax ñu gis ni euh, c'est vrai que am na ay cas yi nga xamante ne am na mu jàpp nañu ay ay ay ay maître yu euh, nit ñi naan ay maître coranique lañu nga xamante ne def nañu ay violence ci kaw xale yi xale yi xale xale yi jàng ci daara yi mais euh, daan yi on trouve que daan yi quand dafa dafa dafa dafa parce que ay deux ans avec sursis la et nous estimons que loolu c'est pas très yi mm-hmm. ñu gis ni tamit ñi nga xamante ne jot nañu gaañu ci prison yi ba léegi daal ten famille seen famille mooy famille victime yi ba léegi amaguñu amaguñu réparation amaguñu procès hmm. pour ñu mun leen euh, jox ndàmpaay ñu tamit euh, ñëpp ñi nga xamante ne ay ay takk der lañu euh, ñi ñi ñu tuumal leen ci affaire violence ba léegi tamit attewuñu leen donc ñu jàpp ni côté boobu quand même euh, état du Sénégal euh, laaj na quand même si respect euh, ak yelleef doomu aadama. alors bu ñu ñëwaatee ci rapport boobu maître wax ngeen aussi si lu aju ci condition de détention yi maanaam prison yi ni fa nit ñi nekkee ak yooyu ndax am na ay recommandations yu ngeen def wala da ngeen a yem ci rapport bi rek. non ci ci avant rapport bi chaque année Amnesty International parce que soo xoolee Amnesty International après j'ai un peu d'histoire am internationale lu ko teex tax a jóg d' abord c' était c' était droit des prisonniers amnistie à bu mu amee ba léegi ak bu nekk dañuy wax ci situation prison yi eh, eh, dañuy liggéey aussi quand ak état bi eh, ak des fois représentation parlementaire pour xool naka la ñuy def pour améliorer conditions de vie des des des détenus am na fii yàgg na def ay recommandations jàpp naa ne am na recommandation yi nga xamante ne état bi jël na ko en charge mais ba tey des na dañu jàpp ni bon euh, déjà euh, sur population bi il faut état bi jóg ci tabax yeneen prison et tabax ay prison yi nga xamante ne qui répondent aux normes internationales mooy ki c'est vrai que nit suñu ko tëjee perte na liberté d'aller et revenir mais yeneen droit yi perte ko donc ay conditions yi nga xamante ne dina respecter dignité donc ba léegi quand même état du Sénégal jusqu'à présent en lu ñu gis am na ay manquements yu may war a soulever par rapport à ça donc état bi daf ci war a góorgóorlu ñu koy woo nag ci loolu crise bi te wane na ci population bi arrangé wul kenn donc euh, mën na créer ay ay ay kii yi nga xamante ne day day métti si déten euh, détenu yi mais tamit loolu tamit mën na indi ay problème de de de transmission de de circulation de de de ce malheureux virus là ba nañ de gis nañ am am ñu si def na ay recommandation pour ñu libérer ay détenus yi instant état bu ñu koy def je pense que loolu lu ñuy rafetu la rafetlu la et donc euh, Amnesty mu def ay recommandation mais recommandation yi c'est pas tout le temps que l'État les prend alors euh, ci détenu yooyu nga xam ne libéré nañ leen ndax coronavirus bi seen Habré ci la bokk waaye am na ñu ci am tiitaange tuuti bokk na sax ci victime yi euh, ñu ne li ñuy ragal mooy bu weesoo soixante jours yi di ñaari weer yi seen abre jaaree fa toog këram ndax yéen itam lu nimel ngeen ci ragal waaw am nañuy am nañu njort ni war nañ ko ragal parce que seen après suñu information yi jot euh, li libéré peut-être c'est le moo juste euh, seen après dañ ko dañ ko permettre mu gën mu dem toog këram mais mu dem toog këram si kaw euh, autorité administration pénitentiaire te information yi ñu dégg mooy seen après bàyyi nañ ko mu ngi këram àndul ak benn takk der bu koy bu koy bu koy surveiller loolu quand même ñu koy vérifier mais bu dee loolu moo am tam ñu koy ñaawlu parce que il faudrait pas que état du Sénégal profité ni bàyyi Hissène Habré parce que Hissène Habré kenn mënu ko bàyyi euh, parce que il a été condamné pour crime contre l'humanité te boobu état du Sénégal soo xoolee euh, statut de la cour africaine euh, extraordinaire bu ko condamné mooy kuréel bi nga bi ñu taxawal pour condamné ko te ñu juge ko fii Sénégal mm. dafa ne Hissène Habré comme Sénégal fii lañu ko tëjee Sénégal dafa am obligation veillé ba seen abre mu exécuté peine bi ba mu jeex tàkk ñuy sakku ñuy sakku di ñaan état du Sénégal que Hissène Habré soixante jours yi su jeexee nañ ko jël delluwaat ko prison en espérant que euh, crise bi euh, contre euh, Covid 19 bi jàll. di di di di profité tamit ci occasion bi parce que Hissène Habré mooy parmi les raisons invoquées mooy mag la xëy na dafa feebar moo tax ñi bàyyi ko mu dem jege njabootam. Sénégal tamit nag ci prison bi am na ay nga xamante ne ñu si conditions yu mel ni méngoo ak bés commune condition hygiène euh, après nga xamante ne kon kenn condamné na pour crime contre l'humanité euh, ñoo ko gën a feebar ñoo ko gën a néew doole yi euh, ñaan yàlla ñu ñaan état du Sénégal ci boobu tamit mu pour ne pas mu am ay discrimination mu permettre ñu tamit mën a rejoindre seen famille. puisque simplement c'est des nga dañoo feebar te euh, bi quand mooy mooy moo moo moo. Euh, mag ñi la gën a euh, menacé voilà voilà. Mhm. alors maître mhm. ba tey lu jëm ci Hissène yi kon mun nañoo jàpp ne suñu ko doon bàyyi ndax argument yi ñu wax amnistie du ci ànd. non amnistie c'est pas que amnistie du ci ànd amnistie mënu ci ànd parce que yoon mayul loolu état du Sénégal état du Sénégal yoon lu mu ko laaj mooy jàpp nañu. Hissène Habré condamné nañ ko fii état du Sénégal dafa war a taxaw ba am euh, Hissène Habré euh, peine bi mu jeex mu mu exécuté ko ba mu jeex tàkk mais comme moom dañ ko dañ ko condamné à perpétuité Hissène Habré warul mën a gën a prison donc ñuy ñaax état du Sénégal mu veillé si loolu te ñun Amnesty du ñu nangu Euh, état du Sénégal violé n'est-ce pas euh, instruments internationaux yu mu signé. gis nañu aussi bi affaire bi dooree ba léegi seen après yéen a ngi euh, ci wetu victime yi tey nan ngeen leen nar a taxawoo ba xëy na li ñuy ragal ci mbirum seen Habré gi du du am. waaye taxaw leen mooy déjà victimes yi am na ay avocats xam naa lim si jëm dañ ciy taxaw mais ñun en tant que organisation de défense des droits de l'homme dañuy dañuy servir d'alerte donc di di di di contrôler action état bi ci kaaw Hissène Habré bi. di di di éventuellement dénoncer état du Sénégal su bëggee violer ses engagements internationaux mais tamit euh, di ñaan état di ñaan union africaine parce que victime yooyu euh, ci euh, lu ma xam xam naa peut-être avocat yu conseil ñoo ma ñoom ñoom placé pour wax ci loolu mais tamit ñaan union africaine pour fonds yi naan dañ koy mettre en place pour la réparation des victimes des crimes contre euh, des crimes contre majeur commis par par par Hissène Habré ñooñu ñu am euh, euh, naka lañ koy waxatee encore ndàmpaay ci loolu la ñuy liggéey et puis ñu naan ñun quand euh, victimes yi duñ leen bàyyi dañ taxaw ba seen tax yële doomu aadama état yi respecté leen mm-hmm. Union africaine respecté leen i seen ab ko. ñu ñëwaat ci seen rapport bi yéen waa Amnesty euh, bu ñu ci sukkandikoo ndax mën nañoo wax ne Sénégal ak ak yelleef euh, sori nañu loolu ci sàmmonte ko boo leen aussi mënee jox note mu gën a doon misaal. waaw xam nga note joxe note moom dafa dafa jafe mais lu ma lu ma mën a wax xam ne Sénégal yëpp euh, xam nañ ko gis nañ ko mooy Sénégal bi léegi ñu ngi violé ay ak ak yelleef doomu aadama violé liberté d'association liberté de manifestation yooyu xam nañ ko. kaaw Guy Marius Sagna docteur Babacar Diop ak Abdou Karim Gueye rappeur bi yëpp wone na ko am na sax benn euh, défenseur des droits de l'homme ma Oudi Oudi Diallo bu ñu condamné woon fële booru Tamba booru Kédougou parce que simplement dafa dénoncé nu ñuy partagé de façon administrative euh, terres yi pour le pour pour pour certains au au au au grade donc yooyu ñu jàpp ni yooyu ay violations yi nga xamante ne du rafetal deru Sénégal ci par rapport ak loolu gis ñu tamit nit ci prison parce que simplement condition de vie c'est pas c'est pas c'est pas conforme aux standards internationaux te ñooñu suñu gaañoo mais c'est vrai que enquête dina am mais en général état du Sénégal du joxe du joxe ndàmpaay gis tamit euh, ñi nga xamante ne ay xale may ñaa xale taalibe yi euh, ay nit leen di dóor di exercer ay violences physiques contre ñoom euh, am na ñi nga xamante ne dañ leen téye certes mais tamit dans leen daar et eh bien dafa dafa dafa ndaw te tamit euh, famille yu ñooñu noonu xale yooyu nga xamante ne euh, dañu am ay dañu exercer contre ñoom ay violence euh, ba léegi tamit jot ñu réparation donc ñu jàpp ni Sénégal ba tey ci respect des droits de l'homme amul évolution yi nga xam lu tax ñoo wax ñu ñu ne ko naka ko waxee encore félicitations mais loolu taxul taxut loolu quand même n'empêche pas de dire am na question yi nga xamante ne bi mu ngi mu ngi ciy góorgóorlu hmm. mais xam ni état bi kat moom mooy premier responsable pour garantir euh, liberté et droits fondamentaux citoyens moo tax ñu jàpp ni euh, am na ay ay structure ay ay jumtukaay yu état yi taxawal mais ba léegi loolu doyul parce que dem ni si jumtukaay yooyu nit ñu fay teg amuñu neutralité buy tax ñu jàppale état mm-hmm. pour état bi mën a euh, respecter n'est-ce pas ak ak yelleef doomu aadama yi Sénégal. Mm-hmm. fan ngeen gis ne état mi ngi fay góorgóorlu. bon fan lañ gis ne état mu ngi ciy góorgóorlu de crise bi. le fait que état bi quand même euh, di génnee nit prison pour euh, aar ci ci bi mm. loolu ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy rafetlu le fait que état bi tamit sur les droits des enfants de façon générale mu ci lu jël ay dispositions yi nga xamante ne c'est législative et euh, réglementaire loolu ñu koy rafetlu lu ñu peut-être lu ñu lu ñu condamné loolu lu ñu rafetluwul mooy dafa am faiblesse dans dans de ces décisions là mm. bon ñu ñuy rafetlu tamit état bi quand nu mu nu mu bàyyee nit ñi nga xamante ne comme ñoom Guy Marius Sagna ñoom docteur Babacar Diop ñoom Adama Gueye jox leen euh, liberté provisoire loolu ñu koy rafetlu mais ñu ngi naan aussi de ce point de vue état bi quand mu abandonné carrément les charges parce que loolu moo moo ak yoon. Mm. je crois euh, ci que euh, il faut ñu continuer sensibilisation bi sénégalais je pense que de plus en plus. il faut euh, ñu gën a xam seen ak ak yelleef doomu aadama parce que am na ñu koy xam mais il faut quand même ñu mu combat bi gën a continuer sensibilisation bi gën a gën a continuer et puis euh, di jàpp ni Sénégalais euh, ñoom ñu bëri de plus en plus surtout ak diaspora bi ak réseaux sociaux yi avec avec tous les réserves que peut apporter à ça que de plus en plus ñu ngi ñu ngi gën gën a xam seen droit. ñu mm. koy gën a gën a revendiquer loolu lu rafet la. Mm. et puis aussi di xamal Sénégalais yi. Euh, comme ñenn ñu bëri ñu koy wax parce que sànq waxuma ko woon ci tubaab que euh, ñun organisation des droits euh, ñun ay seetaan la ñu indi ay ay rek la ñuy dugal ci réew mi. Mm. loolu je pense que wax yu nga yàlla am na ci droit te kooku c'est lié à l'être humain donc le fait di di nekk seetaane ba eh, mos naa ko wax tamit nit ñi ñu xam ni ak ak yelleef doomu aadama du yëfu tubaab. yëfu tubaab euh, Sénégal Afrique yàgg nañ ko euh, kaas soo xoolee sax même du temps de Soundiata Keita au treizième siècle bien avant la déclaration universelle des droits de mm. eh bien am na ay textes ay textes yi nga xamante ne euh, ngi tëral ak ak yelleef doomu aadama donc il faudrait pas que nit ngi xalaat ni ak ak yelleef doomu aadama yëfu tubaab la yëfu nit la rek muy ku ñuul ku jaune ku ku weex. ñëpp ci yem jërëjëf maître ñu ngi lay gërëm amoon nañu mbégte dalal euh, ci matinalu réew mi ma fàttali ni yow euh, maître Amadou Diallo yaay président euh, section sénégalaise bu Amnesty International. waaw maa ngi lay gërëm Fatou di ñaan yàlla yàlla aar ñu ci virus Covid 19 bi. di ñaax état bi gën a góorgóorlu kayam ci ay mesures. dire pour protéger les, les populations niveau population yi tamit ku nekk en ce qui mu def preuve de, de responsabilité mm. euh, geste barrière yu ñu wax pour ñu jël ko ku nekk euh, jëm ko jël pour aar sa bopp aar sa njaboot aar mm. yeneen mm. ñu ko defee je pense que avec euh, le concours de l'État eh bien yàlla dañu musal jërëjëf maître yàlla na ko yàlla def ñu ngi lay gërëm